jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baaxa a baax tey jii nag ni ngeen ko gisee ñu ngi file benn baraag seet si benn jigéen boo xamante ni jamono yi jafe-jafe lay dund waaye doomam du dund li nga xamante ni moo di métit mu nekk loo xamante ne ni lu métti la loolu moo tax ñu seet si ko ngir askan bi mën a jàpp ci li nga xamante ni moo dal xale bi xale bi nag ci tuuti li nga xam ne mën naa leen ko wax balaa ma dugg ci biir mooy loxom bi mu ngi waaj a yàqu ay baaraamam mu ngi commencé wadd te bu ngeen ci jàppul rek dina gën a ñaaw ndax ñuy dugg ci biir kër gi bu ko defee dinañ xam lan moo sooke mbir moomu ndax accident la wala feebar la damay ànd ak sama caméraman bi rek dinaa gise ak yaayu xale bi bu ko defee mu indil ñu ay leeral ci mbir moomu naka rek la demee jërëjëf mbokk yi comme ni ma leen ko waxee bi nga may xam ne moom lay door sama présentation eh, waa ji nag ndaw si nag moom moo toog ni ki nga xamante nii moom la uuf nii mooy doomam bi nga xam ne jamono yi mooy dund li nga xamante ni moo di métit bu bi nga xam ne moo nekk nii loxoom bi nga xamante ni yéen a ngi koy gis noonu ci image bi dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bi di wasaare bu ko defee ñu daal dugg si waxtaan bi soxna si maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant di la gërëm euh, ngi maa ngi si jàmm bu baax naka la Faati Faty ñu ñëw seet si la ngir jafe-jafe yi nga xam ne yaa ngi koy dund ak métit bi nga xamante ni sa doom mu ngi koy dund jamono yi ndax mën nga ñëwalatal ci mbir yi exactement rek naka la demee. Mm, mbir bi avant tabaski la woon yàgg na torop soog bi uh, oto moo ko fiiroon boobu ba tey def nañ liñ ci mun papam daw na ba sonn entré nañu hôpital lu mat 20 jours wante ba mu génnee ba tey gisuñu ci benn tan papam lu mu yoroon yëpp def na ko ci waa hôpital dañ ñoo bindal kayit nee nañ il faut mu dem Fann kayit bi bañ demee Fann xamal nañ ni nee nañu loxo bi il faut ñu def ko grafe greffe bi balaa ñu koy kii nii il faut ñu indi deux cent cinquante mille waaw loolu grafe bi kese la kii bi bokk ci te suñ ko greffe ba pare il faut mu entrer ñu téye ko il faut ñu téye ko ba fu ñuy dagg mu mun a wér waaw ñu ñu ngi ñu ngi euh, leen ñi ñaan rek ci ndimbal lépp waa kon balaa ngaa ñëw ci ndimbal bi accident bi fan la amee ak ban heure la am. accident bi mu ngi amee ay vingt vingt heures yooyu ay côté vingt heures dix yooyu boobu la accident bi amee ci tali marché bi sama benn mag la àndaloon ndekete da ko topp yëgu ko mu kooku jéggi mu jéggi fan njaganjaay bi di ñëw. d'accord loxo bi lan la dafa damm wala. loxo bi dafa damm woon tigéey bi tamit yax yi tamit daa demoon ba mokk wante bañ demee hôpital opéré nañ ko ba feeree loxo yi wante bañ feeree loxo bi ci kii bi damm bi moom instant bi wér na waaw wante góom bi moo des ndaxte comme ni ngeen ko gisee rek ci vidéo bi noonu la loxo bi mel waaw. xamee ne damm bi dem nañu hôpital tabaxal nañu ko def nañ ci feer yëpp ba damm bu wër ndax bi nga xamante ni loxo bi meraat na ni yóbbu ngeen ko ci hôpital bi ngeen ko yóbbu woon wala. déedéet waa hôpital bi ñoom euh, loxo bi ba ñuy bàyyi pour ñu dem euh, fan sax loxo bi nii la mel ndax waa hôpital bi géjuñu fa deret instant bii nii sax fu ñu ko gisee ni deret sax amu ko dañ koo waroon defaral deret wante deret bi rek maa ngi jaabandi chaque jour. mënuma mënuñu ko koo defaral. moo tax waa hôpital bi jëluñu ko en charge ñoom ñu ko defar. ah xaw ma wante hôpital bi wax dëgg yàlla ñoom sax dem na avant ñuy génn papam sonn na trop man maa dem ba ci ñoom wax leen ah man de sama doom bi papam jeexal na tàkk fii nii damaa bëggoon xool su amee cas social sax ngeen jàppale ñu léegi ba ma ba ñu xamal ma cas social mu ngi fa wante ba ma fa demee ka waa cas social bi dañ maa wax carrément il faut ma déposer xaar te lii nii urgent la woon mënul xaar. ci euh, loolu noonu boo ñëwee waxaat ko docteur yi ñu xëy suba ñee nañ nañ génn waa na na génn ba ñu génnee boobu lañ bind euh, kayit bi nee nañ nañ koy jàllale fan mais ñoom euh, ba nga fa demee toog ñu gis situation bi ni mu demee sa doom ji loxoom bi ni mu méttee en tant que docteur ñu xool ko nela sa doom ji na génn lan moo sabab loolu lan moo sabab ñu ne la sa doom ji na génn. wax dëgg yàlla man moom xaw ma lu tax ñu wax ma naa génn man moom su ma xoolee sax. dem naa sax ba wax papam est-ce que nekkul li ma leen wax sax papam jeexal na moo tax ñu ñokk na génn ndaxte ba ma waa ba jeexal na instant ordonnance yi ñu mujjee indi jënduma ko waaw waa ba may jënd nag ñu jël bind bi na kayit ñu ne ma mooy naa ko yóbbu naa ko jàllalee fan mu continuer foofu faju bi continuer foo lépp ndaxte deret bi ñu waroon bi ñu ma waroon euh, def pour ma defal ko xale bi deret boobu noonu chaque jour bañ ma toppee ba sonn ma ko ah, man de aw ma li may jëndee deret bi wante am naañ mbokk bu nga xamante ni mun nañ koo may deret nee nañ ko nañ mbokk yi na ñëw boobu laa dem ñoom papam euh, papam dem ne ne munuñu koo may deret mag waaw magu papam bi moo dem kooku may ko deret deret bi ko may ko papam bi mayoon boobu sax defaluñ ko moo tax loolu deret boobu noonu ba ma fa demee ma wax leen magu papam bi ñëw na may ne ko deret ñu ne ma waa gis nañ deret bi wante il faut ñu defar deret bi comprendre ma ñëwaat lendemain bi chaque jour heure bu ma xëyee maa ngi dem ba ma demee lendemain bi ma euh, deret bi ma fekk fa beneen docteur mu ne ma deret bii nii tuuti deret la kon bàyyil ma defaral ko ko kon day miir mu mun a taxaw tombé dëkk médecin bi ko yoroon ñëw mu ne ma déedéet bul nangu ñu defaral la deret boobu ndaxte suñ ko defaree deret boobu noonu Euh, dañ koy bàyyi mu dem boobaa deret bu mu am da koy perte bàyyil ba deret bee ñu defar ko ba ñu raxas ko ba ñu defar ko rek mu ñu defar ko ko benn yoon boobu ba tey nag jaabante naa ba sonn wante chaque jour ñu wax ma tey suba ginnaaw suba ba tey nii mooy wax ak yow deret bi defaraluñ ko ko. ba tey defar gu euh, deret bi defaluñ ko ko kay di fa nekkoon sax ba tey kiiwuma ko. léegi si ban hôpital lañ la wax pour nga yóbbu fa xale bi kon mën fa fajoo foofu. kii hôpital Fann. waaw. lan moo sabab ñàkk dem bi ba léegi manque de moyen la wala danga nga loo fa yóbbu. li ma damaa amul li may demee ci hôpital bi wante médecin bi wow naa ko ba ma ko woowee téléphone mu xamal ma euh, greffier bi kese deux cent cinquante mille la ak ticket ma woowaat ko laaj ko ndax suñ ko greffé rek dañ koy bàyyi mu ne ma déedéet suñ ko greffé il faut ñu téye ko ba góom bi fu ñuy dagg ak euh, greffé bi ñu mun a ñu mun koo kii nii ñu mun koo faj. waaw balaa ñu. d'accord gannaaw jafe-jafe yi nga xamante nii wax nga ko ci mbir yi yëpp diggante hôpital bi métitu xale bi nga xamante ni yor na ko borom oto bi nga xamante ni moom moo ko laal anamu moom lan la wax naka la réagiré. wax dëgg yàlla borom oto bi ba tey man musuma laa laa wax ku xees wala ku ñuul ba tey man musuma musumaa teg bët euh, borom oto bi soog bi ba mu amee taluma ko. soog euh, bi moom amee police jël na ko ba def ko ba yóbbu ko police mu am fa deux jours ñu bàyyi ko mu génn wante man ba tey gisuma ko wa ba ma jamono yu ma nekkee hôpital nag dégg naa ñëw na fii ci kër gi ñu wax ko hôpital laa nekk ma wante ba tey boobu ba tey laa ko gëj mais moo tax toppoo tamit borom oto bi nga topp ko moom tamit mu mën a def participation jël responsabilité ci xale bi aussi. borom oto bi topp ko ndaxte man xaw ma sax déjà fu mu dikk wante police dem naa fa papam dem na ba police wax leen ko wax ne leen borom oto bi gisu ko wante police bi nee na waa konte gisuñu ko nañ faj suñu doom ba mu wér. ñu topp assurance wante est-ce que est-ce que urgent nit mun na cee xaar assurance assurance kayit yi bañ ko déposé ba léegi munul génn nee na nañ toog ba ñu wooñu papam chaque jour mu jaabante ndax mënul ta mënul xaar ba ñu woo ko loxo doomam mu ngi yàqu ndax urgent la waaw boobu ba tey ci loolu la ñuy dox. xale bi ñaata at bi am na 5 waaw muy sa taaw sama taaw waaw. bi moom naka la koy dikkalee lan ban heure lay gën a metti guddi gi bëccëg bi wala. métit bi moom guddi gi loxo yi gën a sonal bëccëg gi mun na toog nii foo léeg-léeg su loxo bi méttee mu ñëwaat mu ne métti na nga may ko sirokat mu continuer foo wante guddi moom du nelaw ba bët set léeg sax guddi gi nu muy nu muy euh, fanaanoo di jooy man sax sama xol bi day day kii damay fanaanoo di jooy. Massa gis ngeen ko. ndi muy dund dafa nekk loo xamante ni lu metti la yaay moom bu tuuree rongoñ rek xëy na métit ba muy dund doomam di dund moom moo ko jàpp gis ngeen xele bi image yi nga xamante ni yéen a ngi koy gis mën naa ne képp koo xam ne gis nga ko nga nekk yaay rek sa rongoñ mën na dal sa dënn ndax loxo xele bi gis ngeen ni mu mettee te loxo bi jamono yi bu ngeen jàppul ñun ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan ni ngeen koy faral di defee ci ñeneen yeeg yeneen xele yi ndeysaan déggal doom ji nee na ko lan la sa yaay loxo bi la loxo bi lay jooy loxo bi daa bëgg nga faju sa yaay loxo bi lay jooy daa bëgg nga faj. waxuma waxuma. doo wax nit ñi ñu jàppale la nga faj. waxuma bu ko faj. waxuma. <laughs> nee na waxul ndeysaan kon nañu ko jàppale nañu ko jàppale askan bi yëpp nañu ci jàpp comme ni ñi nga xamante ne ñu dugal yeneen cas yi ngeen ciy jàpp pour xale yi mën a faju gis ngeen xale bi ndaw la fi mu nekk nii avenir am nekk ci moom bu ngeen seetaanee ba loxoom bi yàqu wala loxoom bi ñu ñu dagg ko rek bu boobaa dina nekk loo xamante ni problème lay doon ñu dara nag dina yaay ji dina joxe li nga xamante ni moo di numéro bi ngir képp koo xamante ni bëgg nga ci jàpp nga jàpp ko nga jàpp ci orange money ngir mu mën a complété yóbbu doomam ji mu mën a faju balaa leneen di ko ci fekk soxna si wax nga ba tuur ay rongoñ lan moo sabab rongoñ yi nga xamante ni moom nga tuur oh, waaw ndaxte lu waral rongoñ yi damaa xam ne ni tey damaa yoru li ma koy faje ndaxte lii bi avant tabaski yàgg na torop nooy amaana su ma yoroon di ma koy faje ba tey wér na wante soo gisee ñu sàggane ko walla mu mu dem ba mel nii ba tey baaraam yi sax day wadd ba ñàkk na ci baaraanam. waaw baaraam la ñàkkagum la benn rek la ci ñàkkagum beneen bi bu ci topp sax tuutee ci des waaw. yi est-ce que booy dindi bandage bi du nekk loo xamante ne luy metti lay ci moom. waaw ndaxte heure bu nga ko yóbbee paas ma muy ñu dindi bandage bi di ko di ko faj day metti torop moom sax lu muy jooyee man sax sama xol bi day tooy wante mënuma ci dara. xëy na ndogal bu yàlla indi la rek. nit ñi fan lañ mën a jaar ci ban numéro lañ la mën a woowee wala ñu message la ngir ñu mën la yónnee li nga xam ne moom lañ lay jàppale. su nekkee wéef la mun ngeen koo def si 78 517 17 20 su nekkee orange money la ñu def ko ci 77 987 00 61. aha xale bu jox nañ ko ay rendez-vous yu bari rendez-vous yi passé na ndaxte rang heure bu docteur bi bi ñu joxee rendez-vous pour ñu ñëw yàlla xam ne ni dañuy xëy sax paas bi ñu koy yóbbee sax doo ko am moo tax ba tey demul rendez-vous rendez-vous yëpp passé na jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi lan lay doon hmm. Hmm? message bi mooy li ma kii rek comme ni ma ko waxee rek ak nuñ ko gisee loxo bi képp ku ma mun a jàppale ci loxo bi ci ngir yàlla ma jël ndaxte instant bi sama doom sonn na trop sonn nañ trop boobu ba tey daw nañu ba sonn papam daw na ba sonn ouvrier donc la daw na ba sonn lépp lu ci munoon def na ko. man li ma mënoon def naa ko sama yaay même chose ay mbokkam même chose wante daa euh, euh, fekk ni kay ay mbokkam amuñu doole samay mbokk amuñu doole képp kuñ ci mun a jàppaleer ci loxo xale bi te yàlla tax ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ci comme mbokku internet yi ni ngeen koy gisee ki nga xamante ni moo di yaayu xale yi yaayu xale bi kàddu yi nga xamante ne ni génnee na ko jëmale ko ci doomam bi nga xamante ni euh, loxoom bi gis ngeen ko mu am problème nekk loo xamante ni métit la ci xele bu ndaw bi nga xamante ni moom moo toog nii loxo bi fi mu nekk nii benn baaraam bi wadd na te dégg ngeen yaay ji ni mu ko waxee beneen bi mu ngi waaj a wadd kon kooku koo xamante ni mën nga ci jàpp nga jàpp ji te yàlla rek tax yéen ñi nga xamante ni da ngeen di def te yàlla tax bu ñuy waxee loolu dañuy nuyu ki ni moo di suñu Serigne Fallou moom tamit gis nañu liggéey bu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy jàppale waa wasaare eh, ci boobu nga xamante ni moom tamit amoon problème mu tànk war a def opération mu yëkkati xaalis bu bëri daal di jox yaayam moom opération bi dañ ko puusoon eh, xam naa ci mois de décembre bi lay def opération boobu kon ñu koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal mama Fatou suñu yaay ji eh, kon dañuy jël keneen koo xamante ne ni mbokk la wala sax ci xarit la ci ki nga xamante ni moom moo toog moom tamit mu joxe ay kàddu ci li nga xamante ni moo dal xale bi soxna si maa ngi lay nuyu leen di fay Oumy Diop la. d'accord Oumy Diop tey ñu ñëw seet si seen doom ji nga xamante ne ni eh, loxoom bi gis ngeen ni mu mel ah, vidéo bi nga xamante ne ni internet yi ñu ngi koy seetaan tamit gis nañ ni mel yan kàddu rek nga ciy sànni. dëgg la loxoom bi moom wax dëgg yàlla metti na fa metti yem ni ko metti na trop ndaxte julli gi bi mu desee 10 jours la affaire bi amoon ba léegi ñu jëloon ko yóbbu ko fee dalal jàmm mais depuis boobu ba léegi ñu ngi ci. papaam lu mu am def na ko ci te papaam maçon kese la loxoom jotul ginnaawam ma ne ko lu mu amoon def na ko ci foofu bi mu demee foofu chaque jour dañ leen di bindal këyit dinañ leen bindal ñu lu mat ñetti ordonnance wala ñeent ñu jënd ko ci lañ nekk ci lañ nekk bokkul ak lal bi nii fay xaw ma chaque jour 10 mille francs xaw ma 20 jours yin fa am rek 200 000 yu teg la mais depuis boobu ba léegi ñu ngi ci gisuñu tan ba papaam dem ba mënatul amatul sax am na jour yi mu fa mujjee nekk yoo xamante ne ordonnance bi sax mënatu koo jënd ndaxte amatul fu mu ko jëlee papaam nekk ci nekk ci nekk ci ba mujj gi yaayam dem fa mu ne leen man de amatuma ndaxte amatuma sax lu may jëndee bandage pour xale bi si leen ko bindal kayit ne na génn yaayam nee na avant muy génn am na foofu kun wax day jàppale waate nee na dem na ba foofu ñu ne comme foofu boo fay dem da ngay déposer cinquante mille ba pare nga wax sa soxla après mën nañ la jàppale fekk yaayam boobu yorul ñaar dërëm sax bay joxe ay cinquante mille ci lañ leen génnee biñ leen génnee nee na jour boobu ñu ne leen il faut ñu dem dalal jàmm ñu yóbbu fa fee ñu yóbbu fa xale ba ndaxte foofu la war a fajoo ndaxte ñoom nee nañ amatuñ ci pexe nee na jour bu ñu doon génn passement bu mu mujjee def si la benn baaraam xale bi deñ ñu ñibbi seex moom mais depuis boobu ba léegi fan bi ñu ngi koy lijjanti dafa tëx ndaxte xaalis moo fay dem te li yàlla xam doy na jot na ngir ñu jàppale euh, xale bi le jot na ngir ñu jàppale li nga xamante ni moo di moomin bi balaa loxoom yi wala sax euh, loxoom bi di di di am li nga xamante ni du ma ne sax problème ndax loxo bi am na problème ba pare balaa loxo bi di deñ nañ ko jàppale bu baax a baax waaye tamit ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax ci ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw euh, ndax tey boo demee hôpital yoroo ñaar dërëm yoo xamante ni mën nga jëndale sa doom li mu bàndee loxoom nga dem ñu naan la déposer cinquante mille dugal ba xam dinañ la jox wala duñu la jox kon nañu bàyyi xel bu baaxa baax ci ñi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw ci côté yi ñuy fajoo soxna si lan moo sabab li nga xamante ni moo di rongoñ yi nga xam ne moom nga tuur. dafa metti sa doom nekk ak metti sag ci dara loolu ku nekk xam ne ne metti na yow waajur lu metti sax nga sempi ko def ko sa bopp moo gën muy dal sa njaboot. lancé message askan bi nga xamante ni ñoom ñoo lay faral di seetaan ci côté bi nga xamante ni war nañu leen ko jàppale ñu jàpp ci bu gaaw a gaaw ndax xale bi nga xam ne moom ngeen di euh, moom ngeen di kiiwal nii mu mën a faju ci bu gaaw. Mhm. ndaxte xale bi métit lay fanaanoo chaque jour amul nag jour boobu dul fanaanoo métit metit lay fanaanoo ba bët set. yaayam nii lay toogee mu wax yaayam ba fajar yaayam sax léeg-léeg day jël téléphone di ko ko jox pour bëgg mu wàññi métit bi mais dara bu commencé metti sax téléphone dootu ko tal metti na trop. d'accord askan bi nga maa ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu ci suñu doom ji te yàlla rekk tax ngi sàkk ndimbal képp ku ci mën sa loxo jot sa ginnaaw. nga jàppale ñu suñu doom ji faju ba delluwaat ci sagoom nekk ay moroomam ñu ngi koy ñaan ñëpp di ko ñaan bépp mboolem jullit ku ci mën a jàpp te yàlla tax rekk nga jàpp ci ñu ngi koy ñaan ñëpp. jërëjëf merci beaucoup. ok jërëjëf yal na leen yàlla fay yéen tamit. kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay soxna si. bi naka la. El Hadj Mouhamadou Sané. El Hadj Mouhamadou lan nga ci xele bi nga xamante ni moom la ndogal bii dal. waaw xanaa sante ko yàlla rek ndax euh, jàmm moom yàlla lu gën rek lay def ci moom te mun nañ ne lii lu jiitoon juddam la kon bu ñëwee dañ koy nangu rek waaye buñ ko nangoo sante ko yàlla ba noppi nag def ci lépp loo xamante ni waroon nañ ko cee def ba mu toll fii yàlla def suñu loxo jotatul suñu ginnaaw kon boo leen jógee yëkkati seen tànk ñëw ngir euh, ñu mën a jaar ci yéen ngir ñu ñu mën a dimbali ngir ba xale bi saafara mën a yegg loolu dañ koy sàkku ndimbal rek euh, di ko sàkku ci képp doomu adama boo xamante ni am nga tuuti cofeel wala yërmande bu dox sa diggante gi yenente bi rek ñu ngi lay ñaan rek nga def ci sa loxo ndax loxo xale bi mën a faju waaw ak noo ko mën a defee rek boo ko defee ñu santee la ko gërëmee la ko ñaanee ñaanalee ko yàlla mu nekk yokkute ak yéen ñi fi ñëw tamit xale bi wax nañu leen li nga xamante ni moom ko war a faj ci ñaata rek la war a toll effectivement ba ñu mujjee jokkoo ak docteur bi de ba defe naa mardi passé su ma juumul la waroon dem mu tase ak euh, gàmmu gi mu dem amul oto mu ñëw mais docteur bi li mu ñu waxoon mooy greffe bi de 250 la waxoon la ñuy greffee loxo bi waaw mais après dañ ko hospitalisé waaw xamuñu nag som bi nan la war a tollu ndax euh, boobu ba léegi daf ko joxaat beneen rendez-vous waaw xam naa boobu moom il faut ñu dem ba yegg foofu ñu soog a mën a xam sam global bi ñaata lay doon waaye nii nii nii may wax ak yow moom. loolu la ñu wax ni moom bu ñu ko amee dinañu tàmbale faj bi incha allahu rabbi. ndax xale bi mu ngi faral di continuer di dem hôpital wala mu ngi faral di continuer di jël ay garabam est-ce que amul problème ngir jël ay garab wala. non non pas tellement mais bon saa yu ñu demee pansement day gis loxo bi daal tanewul day day day yokk rek waaw loxo bi tanewul day yokk rek waaw loolu nag moom wax dëgg yàlla moo ñu ci xaw a jaaxal waaw ndax saa yu demee pansement dañuy gis ni sax ba démb sax ba mu demee yóbbu ko. ñooñu dañ ko ne kii bu ko fi indee lii di suñu domaine waa da nga ko yóbbu ci spécialiste yi ñoom ñoom ñu gérer ko waaw du ñàkk mën a dem nag mais la ñu war a jot la ñu jotagul waaw euh, bind nañu mairie bi boobu ba léegi ñu ngi fay jaabante mais dara sotteegul am na ay bonne volonté tamit yoo xamante ne waxoon nañu ñoom bon ñu ne dina ci def seen loxo waaye nag gisaguñu kenn xëy na nag yàllaa ko dogalagul waaw ba tax na daal ñu ngi sàkku lépp lu waay mën ngir loxo xale bi faju laaju ñuy jox ñu xaalis waaw ku ñu ko mën a jëlal en charge tamit ñu jël waaw jox ko docteur bi direct faj ko san sax jaar ci ñun wax dëgg yàlla ñun loolu rek lañ bëgg a faan waaw mais dalal jàmm la doon fajoo mais foofu depuis ñu génnee ñu ñuy dem foofu mujj sax docteur boobu moo ñu ne il faut ngeen dem faan waaw moom moo ñu ne il faut ñu dem faan wax dëgg yàlla moo tax mais dalal jàmm fii moom fa la entré woon ba génn. mu génne mu fay dem ay rendez-vous di fa dem rendez-vous di fa dem rendez-vous ba yàgg docteur bi ne daal affaire yu daal xam naa ëpp na ko doole il faut ñu dem fan ñu xool amoon nañ fi tamit benn waay bu baax bu nekk fii di dëkkandoo ñu koy wax Matar hôpital lay liggéey wax dëgg yàlla jàpp na ci taxaw na ci kéem kàttanam ba moom sax moo ñu boole ak docteur boobu noonu ba docteur boobu ne ñoom mën nañ ko faj waa laaj ci som bi wax dëgg yàlla bon moom ba affaire yi amee parce que boobu suma frère bu nekk hôpital man maa demoon police ànd ak moom parce que euh, woon nañ ko fa ay fan ba ma ñëwee lañ koy soog a libéré mais ba ñëwee sax euh, dama doon demandé police pour moom mu ja jàpp ci faj bi waaw pour moom nu mu def jàpp mais foofu dañ ma fa conseillé nii boo leen defee loolu mun na leen euh, par exemple tey mun na génnee benn som jox leen ngeen dem somu kuy faj bi ëpp loolu. kon li gën mooy ngeen topp ko ci assurance waaw loolu police lañ ma ko conseillé ma ne kon bàyyi ñu def loolu après ci lañ ko delloo ay papier mu libéré ko affaire yi tamit ba yàlla defee ba ñu génn booy bi yóbbu na kayit yi di fi boobu yàgg na fa nag ndax def na fa weer ak lu topp wala jege ñaari weer fan yi la ciy soog a jot ba yóbbu la mais xam nga rek affaire assurance gaawul waa et booy bi demandé loon na leen benn faveur que ni ndax mënuñu ko dimbalee leen ci faju xale bi la ca des moom après yàlla baax na ba heure bu pare yëpp mais dañ koy def ping pong daal jaabanteloo waaw te loolu day xaw a métti day jël temps aussi waaw. waaw di lancé bonne volonté yi rek. waaw ñi nga xam ne dañuy def rek te yàlla tax te nga xam ne bëri nañ ci dëkk bi loolu. waaw peut-être euh, amuñu sens wala possibilité pour egg ci mais ci à travers vidéo bi yàlla mun na def ñu jote ci képp ku ci jote rek te am tuuti humanité bu nekk ci rek ñu ngi lay tàllal loxo. waaw pas pour nga jox ñu xaalis mais nag ñu jëlal sàdd xale bi rek ba mu mun a faj waaw ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit waa wasaare di leen sant bu baax di leen gërëm ñu ngi leen di faral di gis ci réseau yi seen liggéey ñu ngi koy rafetlu di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yokk fi ngeen bëgg a àgg it yàlla leen fa yàlla eggale yàlla yokku leen bu baax a baax waaw waaw ak mboolem média bi rek jërëjëf kontaan nañ ci yéen baax yàlla na yàlla fay leen yow jërëjëf mbokk internet yu doon safoo di seetaan site bi di wasaare ni lañ leen ko waxee tey jii ni ngeen ko doon gisee ñu ngi seet si woon suñu sœur waaye tamit seet si euh, boo xamante ne ni rakk lañ ko mën a woowee ci ñun gis ngeen jafe yi nga xamante ne ni mu ngi koy dund ak métit bi nga xamante ne ni mu ngi koy dund ci loxoom bi nga xam ne gis ngeen loxo bi ni mu méttee essant yi mu war a faju ñu war ko defal li nga xamante ni moo di passement ak leneen ak leneen kon euh, fi mu nekk ni papaam amul doole yaayam gis ngeen wax na ba ay rongoñam dal ci dënnam vidéo bi même chose ngeen di def ndax métit bi nga xamante xale bi mu ngi koy dund xale bu la lu ndaw jamee sax day metti ci yow waxuma laa nag loxoom bi euh, état bi nga xamante ni moom la nekk kon moo tax ñu ngi ñaan askan bi comme ni ngeen koy faral di defee ci vidéo wasaare yi rek saa bu ngeen seetaane vidéo bi def ci seen doole waaye tamit def ci seen ñaq ngir xale yooyu mën a faju ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di si woo ki nga xamante ni moo di tonto Aline te ñuy sekkal moom liggéey moom tamit mu nekk fële ca hôpital Maguilène Philippe Senghor moom tamit jàpp mën a def li nga xamante ni moo di link bi waaye Diop Faramareen moom tamit ñu ngi ko ciy woo doom ndey waali gis nañu social bi nga xamante ni mu ngi koy faral di def ak képp koo xamante ne nii um, seetaan nga vidéo bi rek te bëgg ci def sa doole dinañu joxe benn numéro ci vidéo bi numéro boobu képp koo xamante ni woote nga ci li nga jot borom numéro bi moo xam Wave la wala Orange Money ci numéro boobu ngay jaar mën nga sax bañ a jaar ci wasaare bi mais soo jaaree si numéro boobu rek di nga jot kenn koo xamante ni jege ñaale la wala yaayam uh, ko defee li nga koy yónnee moom ñu jot fi bu ko defee xale bi mën a faju ngir mu mën a dellu jiwaat ci ay yiteem ndax métit bi metti na lool ci moom ñuy jaajëfal uh, famille bi nga xamante ni moom lañ fi fekk si waaye di jaajëfal soxna si nga xamante ni ni moom tamit moom moo dox lépp xale soxna si turu bi naka la xaar mama xaar ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit mu nekk borom xol bu rafet moom moo dox lépp ngir xale bi rek mën a faju ba mën a delluwaat ci ay itam ñu ngi koy remercier bu baax di remercier mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan site bi di wasaare rendez-vous beneen yoon incha ak yeneen actualité ak si benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi xale di sama doom ji merci beaucoup